waa sama gars yi yéen a ngi fii ah si RSTV ah seen émission tracé town bi tey nag dañoo def micro trottoir boo xamante ne bu doy waar mooy lan si wàllu Coupe d'Afrique bi ah si loolu la ñu ñëw tey. ça chef bi na def. maaleykum salaam. waaw tey dañoo bëggoon a xam Sénégal ban jour lay joué Coupe d'Afrique. Euh, le 10 lañu war a football. le 10 ñoo mag kan. Euh, le 10 euh, je pense que Mozambique ah. moom ak. Mozambique waaw dañoo bëggoon a xam ndax Krépin match bii di ñëw moom mooy démarrer wala day xaar ci banc bi. ah il a sa place pour démarrer le match il a sa place pour démarrer le match mais les classements sont en toujours peut-être une nouvelle horizon de changement quoi. Voilà, mais à part la place de Crépin, mais je pense que sa Mané aussi va démarrer le match. man moom espoir moom bari bari woo ci xam-xam bari woo ma Sénégal am yàlla mu am ndam bi ah, ah, loolu nag échange na tuuti mais Sénégal est-ce que du football euh, ci mardi wala mercredi mais mais premier match am kan la war a dajeel Éthiopie wala euh, Colombie Éthiopie wala wala kii euh, Côte d'Ivoire Sénégal bokk la Côte d'Ivoire bokk la Éthiopie poul Sénégal roi kii Malawi je ne sais pas équipe yooyu ah mais du Rwanda du du Côte d'Ivoire. xamoo ko xamoo ko. Euh, entre Crépin ak Saliou Ciss kan nga yaakaar ne moo war a démarrer premier match. Crépin. Crépin. Ah. a démarrer premier match. waaw ah. tey moom instant bii nii gars yi dañ ne woon dañ ko daax même mais instant bi gars dama dégg ne dañoo indiwaat ki nga xamante ne mooy El Hadj Diouf si équipe fu pour mu yor équipe bi entre El Hadj Diouf ak Aliou Cissé kan nga yaakaar ne moo yóbbu équipe bi Coupe d'Afrique. El Hadj moo ko yóbbu. waaw ah, lan ngay conseillé El Hadj Diouf ajo toujours bu baax la uh-huh. kooku uh-huh. ma ma subal kooku bu baax kooku toujours uh-huh. mag la bu baax la sola bu dafini man dam yëgg bi sola ah non ma si Sénégal moom vraiment man jàpp ma kañ lay kii man daal affaire lamb moom laa gën a suivre quoi. affaire lamb daal nga gën a suivre. laa gën a suivre waaw. ah ok léegi mën na ngeen ñu wax tey jii nii kan mooy coach Sénégal bi kan mooy seen entraîneur xam nga. non vraiment xaw ma ko quoi. lamb daal laay suivre. yow daal laaw lamb rek. lamb rek football moom du ko suivre lu bari moom. kan mooy sa mbër. sama mbër Eumeu Sène mooy mais Eumeu Sène football. waaw mais man xama rek moom xëy na da ko kii rek da koy pratiquer mais man lamb rek laay pratiquer. ok tey jii lan ngay woo équipe nationale bi war a dem football ji lan nga leen di sonj. waaw ñaanal leen rek ñu ñu amay ndam rek waaw ñaanal leen ñu amay ndam rek comme ñun si ay sénégalais lañ. ñu ñaan rek ndaam li ñëw rek incha allah. ok merci beaucoup ba léegi seen émission tracé temps bi ah, ñu dem xool ji keneen. sama waaj naka yaa ngi ci jàmm. waaw sant yàlla bu baax. bëggoon naa xam El Hadj kii entre El Hadj ak Aliou Cissé kan nga yaakaar ne mooy war a yor équipe ren jiini nii si Coupe d'Afrique. non instant yi moom man moom. su ma la waxee dégg affaire football moom xaw ma ci lu bari. kon xamoo Sénégal kañ lay joué si Coupe d'Afrique. non non football yi su su yore Sénégal yi benn bu seer laa ci xamee Sadio Mané. Sadio Mané Sadio Mané kese. mais gars yi dañ ne Sadio Mané ren jii nii du dem Coupe d'Afrique parce dafa blessé léegi yow lan nga xalaat si loolu. non day dem incha allah yàlla xëj na balaa boobu saa borom weral ay cëram yaa ma gën a xam. waaw entre Crépin ak Saliou Ciss kan nga yaakaar ne moo war a football neuf de pointe ñoom ñaar. non Crépin. waaw Crépin waaw. kon Saliou Ciss jarul muy moom na toog waaw entre El Hadj ak Aliou parce que Aliou Cissé dañ ko dàq instant bi newutu fi El Hadj Diouf nga xalaat ne El Hadj la war a coacher équipe bi. ah El Hadj rek moom daal moom xam na li war ci football bi yaa ma gën a xam man moom football daa demee na. non man daal lu neuf laa si jàpp quoi xaw ma suur bi jàpp ma ko suur tel euh, kii dimanche dimanche. dimanche Sénégal Mexique wala Colombie ñoom ñaar la siy joué premier match. non yooyu ma ci tax quoi yëpp xaw di lijjanti ko. waaw mais ñoom ñaar kan si war a joué Colombie wala Mexique. pour le Sénégal bi sax xaw ma ñu la war a dajal. Ah. bëggoon xam aussi tamit ndax équipe bi fu mu ne nii Aliou Cissé moom mooy continuer yor équipe bi wala ou bien que dañoo obligé indi bëgg indi Pape Bouba Diop pour mu yor équipe bi. non il a sa dernière chance rentable quoi pour pour lui nous ramener le. ah euh, Aliou Cissé laa xam ne Aliou Cissé ah. Aliou Cissé dañ ko daaxoon. instant bi Fadiga ak El Hadj ñoo fa nekkoon ne ñoom ñaar kan moo si yor instant bi équipe bi. ko doon jox moom. Ah. maa ngi ko doon dégg si yow nii. tey nga am pour conseiller ko Aliou Cissé. Aliou daal li mu war a def mooy Euh, bon sama problème mooy Saliou Ciss mi nga xam ne dafa am Covid quoi mais su fekkoon mi ngi fa ma dinaa am confiance à 100 pour parce que day joué rôle bu am importance ci ci ci ci ci équipe bi quoi xam nga parce que xam nga football système bi Aliou Ciss di footballé euh, il faut nga am ay latéraux yoo xam ne dañuy monter à l'offensive xam nga di créer surnom ci kanam xam nga bon comme Saliou Ciss dafa gaañu nag je ne pas ndax booy bi koy remplacé ndax dina man a def rôle boobu xam nga man sama souci yëpp instant bi côté boobu la quoi bon peut-être bon Pape mataa Sarr wala parce que tam bon moom da daan football avec les mêmes joueurs je sais pas ndax Moustapha Naam ndax dina mën a remplir loolu boobu wala Loum Ndiaye xam nga il sera obligé peut-être moo di je ne sais pas comment dirais-je euh, Sadio Mané à gauche euh, Diao Baldé Keita à droite bon samp ci kaw bon un certain peut-être Famara Diédhiou beneen cas bi tam mooy euh, Diao Baldé Keita est-ce que dina parce que des fois mu ñëw normal des fois xam nga mooy loolu daal moom affaire am juste quoi mais tey jii su fekkoon li ñuy yaakaar mi ngi ci moom bon duñ sax xalaat Ismaïla Sarr mi nga xam ne dafa gaañ parce que suñu problème yëpp tey jii foofu la Diao Baldé Keita moom su fekkoon ne dafa rempli à 100 pour cent li ñu koy xaar kon dañuy fàtte Ismaïla Sarr mais moom justul xam nga maanaam progressé wul quoi comme ni moo Sadio Mané ñoo waroon xëccoo leader bi. bi muy soog a ñëw ñëpp lañ ñëpp lañ doon wax naan gaan bi dafa aay xam nga comme El Hadj Diouf ni muy fubale mais tey jii boo xoolee mënoo am ci moom yaakaar à 100 pour cent. waaw dama lay ñaanal ñu góorgóorlu rek. ñu demee joueur góorgóorlu te ñaanal Sénégal yëpp ñaanal nekk benn ñaanal Sénégal indi ndam bi. Aliou Cissé li ma ko woon a wax. Ah. mooy mu gérer dossier yi dans la lucidité. mu bañ a def classement agréable mu xool li nga xamante ne ni moom la équipe bi laaj pour gagner match bi. mu def loolu parce que sénégalais yi fi mu toll nii seen ambition mooy ñu jël coupe bi amatuñu amatuñu ambition sax dem final suñu ambition mooy ñu indi trophée bi parce que on a cinquante ans de participation sans autant que nous prendre la trophée mais il fait maintenant si que nous prendre la trophée et lui ramener ceci ok merci beaucoup ah ba léegi nii ñu ngi si émission Trace Town bi ñu dem xool ji keneen ah ba léegi. émission est très sensée et très sens pour que les gens aussi en accompagnant toujours waaw l'équipe quoi. waaye bu ñëwee ñu wane ne comme ni ñu waneeoon si coupe d'Afrique bu njëkk bu rek wane dem am jom rek jouer parce que indi indi coupe bi incha allah. incha allah merci beaucoup ah yéen a ko déggandoo ba léegi nii émission Trace Town bi fii lañ koy tëjee ak yéen xam ga ba beneen yoon ñu ñëwaat yaay na ma gën a xam merci beaucoup sama gars yi.